comme ni ma koy waxee rek ba naan Macky Sall tu seras le président de la république boobu des na ñaari at ak ñeenti weer man nee naa leen président de la république day am troisième mandat muy Macky Sall wax naa leen man Selbé Ndom ci weeru koor laa nekk de Macky Sall day am troisième mandat du man. maa ko def du keneen na ko def suñu boroom moo ko defal du dee ngeen fan yi li ma ko wax nee naa leen gisuma ko mooy ma dërëm joxuma juróomi dërëm gisuma ko gëj naa gis 2009 waaye am nañ yaakaar ci yàlla subhanahu wa taala ci weeru koor lañ nekk day am troisième mandat Macky Sall mission jeexagul mission jeexagul mission jeexagul du leer laa leen wax Mm. comme ni ma koy waxee rek ba mu naan Macky Sall tu seras le quatrième président de la république boobu des na ñaari at ak ñeenti weer man nee naa leen président de la république day am troisième mandat muy Macky wax naa leen man Selbé Ndom ci weeru koor laa nekk de Macky Sall day am troisième mandat du man. maa ko def du keneen na ko def suñu boroom moo ko defal du dégg ngeen fan yi li ma ko wax nee naa leen gisuma ko mooy ma dërëm joxuma juróomi dërëm gisuma ko gëj naa gis 2009 waaye am nañ yaakaar ci yàlla subhanahu wa taala ci weeru koor lañ nekk day am troisième mandat Macky Sall mission jeexagul mission jeexagul mission jeexagul du leer laa leen wax